tey dañoo ñëwoon ci euh, CRD Laylatul Qadr fii ci gouvernance bu bu Diourbel ngir waajal bis bi bis bi nag ren mi ngi dëppook le 4 avril buñ ci yàlla yóbboo ak ak jàmm 4 avril 2024 mu ne guddi muy guddi goo xam ne guddi gu rëy la guddi goo xam ne moo gën junni weer soxna may tànnoon ko ci liggéey way juram ci la mu gënoon fonk mu di alxuraanu karim def ko lu mat juróom fukki at jóge fi sëñ Mahfouz di wéyal lool tey ñu ñëw fi ci ndigalam ngir daje ak ñi nga xamante ne bi ñooy yor waa administration bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor waa maire bi ngir ñu waxtaanee solos bis bi ak li nga xam ne moom moom lañ yittewoo ngir organisation bi mën a jaar ci yoon wi xamante ne bi yoon wu ñu bëgg la bu ñu dikkee itam jël nañ ko pàcc par pàcc bàyyiwuñu benn jël nañu wàllu ndox jël nañu wàllu santé jël nañu wàllu électricité jël nañu wàllu assainissement bàyyi bàyyiwuñu benn fànn fànn bu ci nekk itam li nga xamante ne bi moom lañu aajowoo ngir bis bi ñoom wax wax nañ leen ko ñu nekkat danañ ko def li nga xamante ne bi noonu lañ ko bëgg comme nag daanañ fi jaar te buñ ñu ko mosaan dig daanañu ko def kon nañ aussi mënuñoo def lenn lu dul rafet njort ki ne buñ ci àggee itam li nga xam ne nañ ko bëggee bu buñ yàlla dimbale danañ ko amee noonu kon mën nañoo wax ne réunion bi réunion bu am solo lañ fi def euh, ñëpp am ci yéene ñëpp takkatoo ñëpp daal foog naa bu ñu fi jógee kenn ku nekk li nga xam ne digg na ko dana dox jëm ca bu ñu demee nag ba mu des ñetti fan danañu toog dajawaat defaat beneen waxtaan ngir xool li nga xamante ne bii moom lañ waxante woon kenn ku nekk fan la toll ci liggéey bi bu amee loo xam ne des na mu war koo baral itam ñu soññ ko mu baral loola ba nga xam ne muy àggee ci la 4 avril moom bu soobee yàlla bu lépp mënta yem itam li ci ëpp incha allahu rabbi dina yem. Euh, waaw xam nga weeru koor li ñu dundal bu ñu nag dundal weeru koor rek kon bis bi day am wàccaay yoo xamante ni moo koy jiitu te ci wàccaay yooyu la ca. jiitu mooy jàngum alxuraan mi nga xam ne moom mooy gënoon a yitteel soxna si moo ko daan def loola tàmm nañ ci wàccaay yooyu itam bokk na ci conférence yi nga xam ne danañ ko organiser mu toll ak juróom-ñetti conférence ñu war ko tàmbali la vingt cinq mars ci dañuy commencé yi bis bu yàlla sàkk dina am benn conférence ba mu des le premier nga xam ne bis boobu dañ koy dañ koy noppalu le deux ñu tëj conférence yi mu nekk conférence yoo xam ne yu am solo lay doon am na ci ñaari yoo xam ne dinaa ko ci jukki rek ndax dañ ko am njaboot gu ñu ko tuddee ni ñu koy defee at mu nekk benn bi lañ ko tuddee kenn ci ñi àndoon ak sëriñ bi mu di Serigne Aliou Diouf Lambaye boobu mi ngi am le 31 mars dëppoo ak ak ak ajjuma moom lañ koy def benn bi ñu tuddee ko njabootu Cheikh Ibrahima Mbacké bu Serigne tubaa boobu itam li ngi am le 2 avril moom mooy tëj conférence yi comme chaque année bi nga xamante ne bii moom la ñuy jagleel kenn ci doomu Serigne Touba yi ren aussi boobu moo koy tëj mu nekk conférence yoo xamante ne bi ci ay thèmes yu bari te te varié la ñu bëgg rek loolu lépp ngir nit ñi man cee man cee jariñu yeneen juróom-benn conférence yi nag du am mbooloo mu koy teewee waaye dañ koy def di ko jaarale ci xarala yi ndax itam léeg-léeg loolu mooy gën a mooy gën a jàppandi su ko defee itam léeg day mel loolu mooy gën a yaatu ci taalibe yi ak ci njaboot gi kon conférence yi noonu lañ ko tërale ba li nga xam ne mooy njàngum euh, alxuraan mi leneen li nga xam ne la dinañu def benn jour set setal boo xam ne booleem li ko dala ci kër soxna si soobee yàlla dinañu def benn journée set setal boo xam ne mboolem li ko dala ci kër soxna si ba ci HLM jaar foofu yëpp romb ko sëñ Fallou ko sëñ jaar bi Daaru Xuddus loolu lépp bu soobee yàlla dañuy ànd ak mboolem daayira seet seetal yi ak Serigne Cheikh Abdou euh, Abdou Latif ñu bale ko ba mu ba mu seet wecc bu ñu demee ba ca heure bi ca bëccëg buñ demee sëñ bi euh, sëñ bi yeewee leen. Euh, maa ngi jëm ci date bi ma la joxoon ci conférence suñu Aliou Diouf Lambaye foog naa le 29 lay nekk du la du la 31 donc conférence boobu la ajjuma 29 lay lay doon 29 29 mars. jëf ñi ngi yeesalaat suñu nuyoo ak suñu ziar. si xalif général des Mourides sëñ Abdou Bassirou Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggalu fi lool te ànd ak wër di yóbbante beneen yoo ak ziar ci sëriñ Cheikh Mouhamed Mahfous Mbacké di ñaan suñu boroom rek yóbbu ñoo jàmm ci bés bi nga xam moom lañ dëgmal muy bés bu mag ñu àddu woon ci rek ci yenn secteurs yi nga xam ne moom lañu ñu war xalaat ne dañ ciy gunge comité d'organisation bi seppi ci rek secteur yoo xamante ne day am solo ci ci bës bi ci wàllu wër-gi-yaram ñu àddu woon ci ñu def ay poste médico avancé li bi nekk ci juróom waaye toftal ci également ay ay ambulance ci li mu ñaar ak ay garab yu doy pour mun a jël en charge ñi nga xam ne ñooy ñëw pour fekkee guddi googu euh, service d'hygiène ndax ku wax euh, wër-gu-yaram également wax wàllu hygiène ndax foo naa ne mooy mesure préventive yi mooy ñu désinfecté kër yi nga xam ne comité d'organisation yi ñoom ñoo koy identifié loolu également service d'hygiène dina ci dugal loxo mais ànd ko également la commune de Touba Mosquée ñuy saluer également son engagement bi nga xam ne jël na ko pour mën a appuyer donc la brigade régionale d'hygiène mais également service d'hygiène yi nekk Touba te wara a liggéey liggéey boobu Euh, su dee nag wàllu ndox ñu xam rek ne fan yee peut-être amoon nañ ay tuuti jafe-jafe ci Touba waaye ginnaaw ndaje bi nga xam ne defoon nañ ko ci arrondissement bi gis nañ ci ay jéego yoo xam ne am na ci euh, secteurs yi nga acteurs yi nga xam ne ñoo seet ndox mi muy commune Touba Mosquée muy Ofor muy Maou Rahmati muy également Touba ci kanam ku nekk jëloon nga say engagement te gis nañu ci bari fi mu ne nii euh, jafe nañ ko ndax forage yi nga xam ne taxawoon nañ am na yaakaar ne yëpp fi ne nii su nekkoon ay jafe-jafe pompe fi mu ne ngay ñi dox waaye nag du tere euh, dinañ ci fagaru ndax euh, indi ay camion citerne yi nga xam ne mu ngeen ci ci limu juróomi camion citerne waaye également ak fukki bâche à pour ndox mi bañ am jafe-jafe ci guddi googu noonu euh, wàllu assainissement muy kër yi nga xam ne dañoo war a vider seeni fosse ñu àddu woon que indi juróomi camion ci diiru ñeenti fan waaye loolu tamit dañuy rafetlu taxawaay bi nga xam ne le maire de la commune de Touba Mosquée wax na ko pour appuyer donc bilan du Fonds Vert ndax moom am nañ ci ay jumtukaay te biral ne na dina ko teg ci loxo commune pour gunge wàllu liggéey boobu ci wàllu set setal dëkk bi muy bés boo xamante ne tënkoon nañ ko comité d'organisation jàpp ko muy le 31 mars Euh, loolu Sonaged dina indi ay jumtukaayam waaye également ak ay nitam yi nga xam ne ñu ngi Touba di liggéey mais ànd koog nag ak euh, taalibe yi fa ñuy setal nag Sonaged du moom moo koy définir ndax day ñëw rek mu ngi appuyer donc loolu su dee kër yi dañuy bàyyi comité d'organisation bi mu recensé këru kilifa yi nga xam ne ak dëkk yi koñ yi nga xam ne moom la ñu war a mën a set setal euh, ci wàllu courant. fan yee rek foog naa ne ñëwoon nañ fa ànd ak ministre du pétrole ak DG Senelec mu am benn projet boo xam ne su pere am nañu yaakaar ci ay at yu baree bare jafe-jafe courant ci biir Touba dina wàññi ko waaye terewul gis nañ amélioration bi nga xam ne aussi ci wàllu distribution courant am na au niveau de Touba waaye li ñu sàkku rek mooy ñu mettre hausse d'alésage ndax xam nañ ne consommation bi durant période Ramadan day yokku ñu fexe ba mettre hors d'alésage la ville sainte de Touba rawatina bërëb yi nga xam ne foofu la ñuy màggale guddi googu euh, indi tamit ay groupe électrogène pour au cas su ñaanuñ ko su courant coupé ñu mun ko ñu mun a mettre en marche donc groupe électrogène bi beneen bi rek muy wàllu éclairage public loolu Senelec ak la commune de Touba dinañ ànd donc pour jéem a entretenir mais améliorer également éclairage public bi ci quartier yi nga xam ne mooy dalal euh, mooy dalal gan yi fi ñu koy tënk rek mooy ci wàllu wàllu kaaraange muy sécurité loolu foo naa ne toujours dañu koy wax mooy këru métier wu de défense et de sécurité ndax am na ñaari zone am na foo xamante ne zone gendarmerie la donc loolu foo naa ne la compagnie de gendarmerie de Touba dina jël matuwaay yi pour mën a sécuriser donc euh, li nga xam ne mooy këru kilifa yi waaye également ci conférence yi ndax day it am mbooloo ñu teg fa également ay euh, takk der pour mën a également prévenir à toute éventualité waaye leneen li nag li nga xam ne doole nañ ko ci mooy fi nga xamee ne bërëb yi nga xam ne foofu la ñuy waajale fu la ñuy lewettale gàtt yi ñu nemee ko parfois ay jafe-jafe loolu également sàkku nañu gendarmerie mu gunge comité d'organisation bi donc mettre indi un dispositif pour bañ a am jafe-jafe yooyu ñu mën ko mu mën a féete féete ginnaaw li gendarmerie def it police dina ko def ci zone bi nga xam ne moom moo ko war a moo ko moo ko war a liggéey euh, barrières yi ngeen àddu ndax barrière également day dimbale takk der yi ci wàllu sécurisation donc lim bi téeméer la ñu waxoon mais suñu mënee am ba 150 ñu xool police ak gendarmerie nan la ñu mën a def pour renforcer le nombre de barrières euh, di wax rek di ñaan suñu borom ah yéen yi nga xam ne moom lañ ci amit euh, c'est de service am ko suñu borom may leen kàttan goo xam ne aussi dinañ ko mën a mottali euh, pour que bés bi aussi gën a gën a taaru donc loolu ñu ngi demandé encore une fois ñu àndandoo ko faire le suivi du ñàkk nag ndax liggéey doomu aadama la donc yéen bi mi ngi fi ak passif mais li ñu ñaan rek mooy ñu gisee secteur boo xam ne mi ngi xaw a sooxee ñu teel koo yëg rek ànd kook euh, kilifa yi ci kaw xool ñu sa mën a jubanti ñu jubanti ko balaa bés ba li ci am solo également mooy ñu fexe ba respecter échéance yi donc yi nga xam ne ay engagement ñu jël mu am des échéances précises nañu fexe également ba mun ko mettre en œuvre dans les délais quand même qui loolu foog naa ne aussi dina gën a yombal également liggéey bi mooy gën ñu koy dabu wala indi ko jamono joo xam ne peut-être pour jëfe ko day indi jafe-jafe donc loolu foog naa ne aussi ñu ngi demande ces de services yi euh, ñu gën cee góorgóorlu pour respecter essiance yi nga xam ne moom lañ moom lañ fixé di ñaan rek en une fois suñu borom yóbbu ñu jàmm ci ba ah lii ñu dëgmal tamit ah muy élection suñu borom def ñu def ko si jàmm ak dal ba incha allah rabbi ah ñu mën a tal li nga xam ne mooy yi nga xam ne moo nekk suñu kanam loolu tamit ñu ngi koy sàkku ci bés bi euh, attan na ko pour ñu ñaan rek suñu borom yóbbu ko jàmm te def jàmm également ci réew mi yooyu la ñu bëggoon yëkkati rek asalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf